asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi di nuyoo lislaam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général kullu murid Cheikh Sidi al Muxtaar Mbàkke ca di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ca mu ànd ak wér moom ak mboolem njabootug Sëriñ Tuubaa gi yëpp ak njabootug lislaam gi yëpp mbokk yi ànd ak ñun ci groupe communication commité comité d'organisation du Grand Magal de Touba 2013 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di rafet lool ànd bi ngeen di ànd ak ñun rawatina ci jamono yi ñu toll di waajtaayu Magal Touba 2013. comme ni ngeen ko xamee seen groupe communication comité de organisation des grands magal de Touba mi ngi ànd ak yéen jamono bu nekk di nemmiku barab yi nga xam ne ñu fiy waxtaanee waajtaayu magal gi wante di nemmiku kilifa yu tedd yu mag yi ci dëkk bi ngir ñu indil ñu ay kàddu yi soññee kàddu yi dénkaane waaye kàddu yi fàttaliku li nga xam ne moo di magal gi ak naka la ñu mën a def ba jariñu ci màggal gi ñu ngi toog nag ak Cheikh Mouhamadul bu Bousso ngeen xam ko bu baax muy imaamu raatigu Touba ñu war saako ci moom ay kàddu yu nga xam ne lu jëm ci wàllu màggal gi la kon ginnaaw bi ñu ko nuyoo siyaare ko di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wérgu yaram ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi njabootu Serigne Mbacké Bousso gi yëpp kon sëñ Modou Mamour Bousso ñu ngi lay saako ay kàddu ci yow li dénkaane ak fàttali màggalu Touba gi ak naka la taalibe yi mën a def ba jariñu ci màggal gi bisimilah. waaw bisimilah rahmaani rahim. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu seydina wa mawlana muhammadin il makin wa alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin sëriñ Assane Ndiaye ñoo ngi lay bu baax di la sant ci taxawaay yi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci wisaare njariñ yi nga xam ne ñëpp dañ koo bokk muy sëñ Tuubaa ndax kenn ku nekk war cee xam loo ci mën a jariñoo ci moom ndax day ku ñu war a xam ngir jariñoo ko moom taxawaay boobu kon ñëpp ngi leen ci sant di leen ci ñaanal ndax lu yàgg la ba lislaam sosoo ak léegi la tàmbali woon sun maam Ibrahima sun borom santoon ne ko jotalal mu ne fii ma nekk de dafa sori lool te man dong ma ne fi mu ne ko jotalal man may wasaare wa ma ala ilal balaa kon nag li ngeen liñ leen di tënkal ci lii nga laaj ci ni ñuy taalib bi ni ñuy def ba jariñu ci sëriñ bi dañ lu gàtt rek lay doon ndax barab bi laajut wax ju bare walla ju yàgg waaye daa fekk rek nag lu baax moom buñ la ko santee te loo xam ne rek a ciy jóge dañ ciy sawar li taalibe yi war a def ba jariñu ci bis bi moo de xam ki ñu fekk si kum doon moom mooy kan kan mooy xaadimul rasul xaadimul rasul du ku xam ku ñuy gëm la dañuy gëm ne Sëriñ Tuuba mii ku yàlla defar ba mel nii mu mel la ngir àdduna war koo jariñoo waaye nag mbir boo ci bëggee jariñoo faw nga xam yoon wi nga jaar ba jariñu ci sëriñ bi moom pas-pas akuk bëgg akub yar akuk taalibe mooy li tax mu ci li ci tax mën a jariñu kuy jóg di ñëw daal danga jiital pas-pas jiital sag bëgg jiital defuk taalibe te xam fi ngay wut ak li ngay wut ak ki koy wut ci moom sëriñ bi sell na lool tedd na lool màgg na lool bu fii dikk danga fas lépp loo bëgg ci sa xol zahir ak baatin boo dikkee wutiin wa mooy laxasaayoo ay teggin akook yar te jox ko kemtulaayal la nga man ci àq jëm yeyoo ci gormal akub fonkeel képp ko xam yaa ngi jog jëm si ci barab bi boo ko mënee bala nga ñëw na nga laab laabug mën a julli boo duggee ci barab bi nga ànd ay teggi nag war ma toog ñaan li nga bëgg te gëm ci sa xol ne yàlla jox na ko àdduna ak alaxira mallaka ni dunya wa samadu yàlla jox na ko adduna ak alaxira kon ku yàlla jox adduna ak alaxira yaar yi dong dootu mu jëm ci adduna mbaa mu kon nag yàlla noonu yàlla teewaloo bis bu ñu àgg ci jàmm te kenn ku nekk la nga war a gànnaayoo laxasaayoo ko ci yar ak ak bëgg ak ko taalibe nga laxasaayoo ko booba diggee loo fi wutu suñu borom defal la jërëjëf sëñ Modou Mamour mu mel ne kàddu yi am na solo lool ci di dénkaane boo am solo ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy waajal li nga xam ne moo di màggalu Tuuba yi mu nekk kàddu yi nga xam ne taalibe bu nuy war na koy dégg ndax bépp barab bu nga xam ne dañ fay jóg ngir sàkku fa tiyaaba sàkku fa lu baax ku jóg jëm ko war ngaa xam yoon wa ngay jaar ngir man faa am la nga xamante ni moo la fa yëkkati moo la fa tax a jóg waaye mu mel na itam bu ñu kàddu yi bépp barab bu nga xam ne dañ fay jóg di fa sàkku tiyaaba mu yomb fa lool war nañuy wattandiku itam di fa def lu nga xam ne mooy safaan ba kon ñi nga xam ne ñoom ñooy jóg di màggal si ñëpp bokkuñu jëmukaay war nañoo dégg kàddu yi nga xam ne moo di kàddu yi soññee ak kàddu yi dénkaane yi kon xanaa sunu laaj bu mujj moo di nga sànni ay kaddu rek ñi nga xam ne ñoom ñooy jóg jëm si ci dëkk bi ak melukaan yu ñu mën am taxawaay bi ñu war am ngeen moytandiku lépp lu nga xam ne lu borom dëkk bi bëggul ci dëkkam bi la ak lu suñu borom subhanahu wa taala bëggul ab jullit di ko def. waaw loolu moom kenn ku ne ngir nga xettali ci sa bopp mooy jaar ci yoon wi ni ko sëñ Tuubaa bëgge moom. dafa wut li wut moom dong amu ci wéttal ba am ko ni mu ko sanc dëkkam bi faggu fi lu mu fi fagu ba sun borom defal ko ko fi waaye nag ku fi dikk te bëgg cee jariñu mel yow ma waxoon léegi ci ginnaaw ngay mel dangay xam ne nag keneen koo xam nga ngir foog weneen melo wu bokkut ak woowu taalifoon na téere bu ñuy wax Matlabul Fawzayni ma nga ca doon wax ne képp koo kii da ngaa jóg jëm ci ci man waroon a mën a dem Makka te am gàllankoor wala tëlégu tee nga mën caa dem nang nang ko defal ñëw gi mu fi ñëw ci moom mu dik aj wa xajjatan li man bi doon fi nirtada waaye wa xujjatan ala mu xaalifin gada koo xam ne kii ni ni nga xam ne ni la bëgg dëkk bi war a mel nila mel nga war fee dikk melo yi nga fi war a dikke melo yooyu nga wuuteeg loola loola dëkk bi aw lay lay doonoon tey ah, da lay dakku waaw subhaanallah kon nag nañ xam ne wa matlaban li taati wa mahraban min taati rajim wa maslakan li subuli tiba wa matrakan li li subuli tidaay sëñ bi lépp da koo ñaan ba noppi ku jubal te mel ni nga war a mel dikki fi la nga bëgg lépp don nga ku jubalut wala nga wàcc yoon woom woom jaarlu loola ca fekk yaa ko teg sa bopp waaye barab moom ni mu mel mel na ni ba noppi sëñ bi defar na ko ku fi bëgg a ku bëgg a defaru da fi mën defaroo waaye ku fi yéene leneen it loola day dellu si ci yow koo xam ne ki jóg nga te ak jub nekkul ci yow jubal nekkul ci yow ah loo dajal xamal ne loola mooy loola waaye nan nag nanu yàlla nanu yàlla nanu def ñu yàlla xiir nu ci dikk ci njub nekk fi njub wut fi lu baax sakku ko niñ ko war a sakko ba am ko niñ ko war a am yàlla na ci yàlla tawfeex ñu koy tëje rek mooy sant yàlla bu baax ñu maase sant yàlla bu baax sant Serigne Touba mi nu amal luñ am munta amal suñu bopp manal nu luñ mënul sa bopp sunu bopp defal nu luñ mënul suñu bopp ndax kenn ko ne yëngëj sa bopp ne yaa ngi man yaa ngi am yaa ngi xam yaa ngi def loo xam ne lii sa kattan mayu la ko saw ñaq mayu la ko kon nag ñu ngi koy sant bu baax moom Serigne Touba di sant nag ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu di tàmbali Cheikh Moustapha nam yore liggéey bi ba aksi ci ba ci Cheikh Seydil Muxtaar mii nga xam ne moo fi wuutu ay baayam tey ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko ah te yéene yi nga xam ne am na ko muy naal yi mu naalal Serigne Touba maamam ci liggéeyal ko ci dëkkam bii ak jumaam ji yàlla may ko kattan ba mu def ko ni ko bëggee fii nag ñu toog nii mooy barab bu tedd bi noo ngi fi toog ak sëñ Moustapha Bousso mi suñ wayjur ñoo xam ñoo bokk nekk ci barab bi ak sun jàmm bi sëñ Ahmadou Bousso ak bokk taalibe bi yëpp ñoo ngi seere ne noo bokk nekk fii ci barab bi ah di ñaan suñ borom teewelu nu fi ay déwén ak jàmm bañ toogaat fii ba defaat ni ci ànd ak jàmm mucc njabootu sëñ Tuubaa gi Cheikh Seydi Muxtaar ak rakam yëpp ak taalibe ak bokk yëpp suñu borom boole na fi yàggal wasalaamaaleykum a rahmatullahi mbokk yi kon mu mel ne lii mooy li ñu leen jëlale woon ci barab bu tedd bi ñu fekk ci sëriñ si Serigne Modou Mamoul Boussa imam mu andiloon ñu waxtaan wu am solo di kàddu yi soññee kàddu yi denkaane di kàddu yu nga xam ne képp ku nga xam ne yaa ngi jóg ngir jëm si ci dëkk bu tedd bii jóg ngir jëm si ci bis bu tedd bis bu màgg bi war nga koo déglu war nga koo càmbar bu baax a baax ngir jëlee ci njariñ ndax bépp barab bu mu jóg ngir sàkku si fa tiyaaba war nañuy wattu lépp luy safaanoo ak lu baax war nañuy wattu lépp lu nga xam ne borom dëkk bi bëgg ko ci dëkkam bi kon ñi ngi sant bu baax di gërëm sëriñ Modou Mamoun Bousso ak mbooleem kilifa yi nga xam ne moom la nekkal fii ci barab bi kon mbokk yi ñu ngi leen jox rendez-vous ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu